réeroo amul ñàkk waxtaan a am ni ko kolof di léebo ndax mouvement ànd suqali suñu gox bu pël ga Fatick fa Macky Sall cosaanoo ñoo fi aloon ci jamono jële waaye dellu siwaat nañ ci dal ba pare nag wax lu waral loolu tey dañoo amoon ndaje fii nga xamante ne mooy pël ga di fieefu le président Macky Sall ñu bëggoo xam ne am na jamono ñu doon wane suñu naqar waaye tey leader yi ñëw nañ bokk waxtaan ak ñun bañ déggoo ci kàddu ñu xam leen ne Sénégal yëpp koñu Macky Sall muy Pëlga ñoom ils sont tous pour le président Macky Sall moom la ñu àndaloon démb moom la ñu àndal tey te moom la ñuy àndal ba faw mais nag engagement bi nga xamante ne moom la jël moom ci boppam pour faire émerger le Sénégal idée boobu la ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk koñam amee woon pour yëkkati ko ci kaw muy ñun ñëpp ñu ànd suqali sunu gox te béy ci say weewu tànk loolu taxoon. lépp loo xamante ne gis nañ ko mu war ko mën a yàqal dinañ ko teela wax ndax nee nañ magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko mënoon nañ nekk fii di noppi noppee suñu naqar bés ba jot ñu def lu ñu neex te kon ñun suñ bopp lañ yàqal waaye suñ mbokk la ñu yàqal waaye suñ waxee li nga xamante ne day yàqal Macky Sall ay nitam ñëw def lu ko saafara wax nañu li nga xam ne moo koy saafara ànd nañu ak ñoom réeroo amul ñàkk waxtaan moo am waxtaan nañ ñoom xam nañ ne ñu nekkuñ ñoo xam dañuy saboté waaye dañoo nekkoon ñoo xamante ne dañoo nekk ci seen dëgg di ko réclamer ngir defaral président yàlla nag Dieu merci ñoom am nañ xelu nangu ñun li nga xamante ne moom la ñuy réclamer ñun tamit am nañ xelu nangu solution yi nga xamante ne moom la ñu apporter ñu ànd ak ñoom def ko ba lu yàlla dogal ñu xam ne loolu la dogal. waaye ñoom nag fàttali nañ ñi nga xam ne ñoo yor dëkk bi ñu bañ di fàtte ñi nga xam ne ñoom lañ jiitee léegi lépp mun nañ wax ne lépp jeex na mun nañ wax ne dara amutoon ndax nu nous dañoo nekkoon ci cadre defar ñi ñu comprendre woon ñoo jàppoon ne ñun dañuy saboter mbaa dañuy def lu yàq mais ñun dañoo nekk APR gis loo xam ne mun na yàq ñu ne dinañ ko xeex luñ ci góobee nag gar ko ndax ku jóg pour réclamer lu nekk mun na la cay fekk mais dañoo jógoon pour defar defar boobu lu luñ ci góobee woon gar ko mais yàlla dimbale nañu ba ñu am terrain d'entente boo xamante ne kenn gaañuwu ci te déggoon nañ mooy ay mbokk yoo xamante ne daje nañ li ñuy wax ne sa bët suufa nga ci sa doomu ndey moo la koy wax te duñ xam dëgg mbaa ñu gis dëgg di ko nëbb ba loru ci ñun ñëpp kon tey ñoo ngi wax ne le mouvement ànd suqali sunu gox ñoo ngi ñoo booloo ngir ngir yëkkati Sénégal yóbbu ko fa nga xamante ne foofu la président bëgg mais nag dañoo bëgg mu tàmbalee fii nga xamante ne mooy koñam mais tamit liñ leen di ñaax mooy jamono bu nekk saa su nekk nañ bàyyee xel ndaw ñi nañ bàyyee xel jigéen ñi nañ bàyyee xel mag ñi ngir dëkk bi mun a jëm kanam joxante nañ loxo ngir le président le mouvement mbaa le Benno Bokk Yaakaar am victoire fii nga xamante ne mooy centre de vote président de la république mu jël paix ci Sénégal loolu la ñuy ñaan te ñu ànd itam liggéey ànd suqali sunu gox yàlla dimbale nañu lider yëpp ñëw nañ fi def nañ ay proposition def nañ ay réalisation yoo xamante ne ba tege na ci. Birame Faye mi représenté ñi nga xam ne ñoo doon dox diggante bi rafetlu na fi mbir mi mujjee. di leen gërëm leen sant ci doylu gi ñu doylu dalal ñu waxtaan ak ñun ñu juboo ci ay kaddu ñuy wax réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. su suñuy rakk lañ suñuy mag lañ ñu nag ñoom ñoo ànd ci xare bi buñ ko dooree ba tey yoon la ñu taxaw di laaj seen wàll di neen aussi que président li mën def na ko ci dëkk bi ci wàllu désenclavement ci wàllu infrastructure ci wàllu nomination bien que des na jël nañ engagement gën leen jàppale ci wàllu liggéey ci wàllu financement ci wàllu formation ci wàllu automatisation. jubóob gi nag indiwaat na beneen àll ci quartier boobu di Pël ga nga xam ne fa la Macky Sall cosaanoo ci fas yéene àndandoo suqali seen gox.